j'espère bien que léegi baax na mun nañu waxtaan euh, li ñuy njëkk a wax nag mooy des fois euh, c'est normal doomu aadama la yàlla bindee yàkkamti loolu doomu aadama la ko yàlla bindee waaye nag yoon la it yàlla moo ne nañ leen di fàttali il ñu leen di fàttali fàttali bi mooy tey bu ñu wàññee bës yi mun nañ ne euh, le gouvernement de du président Diomaye fay mi ngi doog a def quarante cinq jours mooy li ma leen wax ne yàlla ci boppam sax amul lu mu defar ci ci te ak am possibilité bi ak mën-mën bi mais amul lu mu def ci benn fan même bu lay may yow doomu aadama bi du xëy rek du xëy rek nga judd rek mu may la am na progression bu ko neexoon yow da ngay juddu ci ñaari simili mais defu ko dangaa ngaa ëmb sa biiru ndey neuf mois munoon nga fa faatu neuf mois minimum quoi minimum yàlla bàyyi la fa neuf mois sinon boo génnee avant neuf mois yi ci crèche bi ngay mujjee boo defu ndànk nga dee boo génnee avant neuf mois yi boo defu ndànk fœtus lay doon maanaam après doo dund donc yàlla ci boppam doomu aadama ci boppam rek. processus bu mu def ci biiru ndeyam rek neuf mois la mu doog a génn ko doog a nag commencé tëdd mënul dox processus ba bu muy dox ba bu muy wax ba lépp procesus la donc amul pouvoir boo xam day ñëw rek sotti lépp ci même moment bi affaire bi yëpp sotti yàlla sax defu ko loolu yàlla dul def moom te am capacité bi am possibilité bi war ko mën a def te mënu te defu ko kon waxuma laa nit boo xam ne danga ko fal ci 45 jours bu koo laaj résultat kooku moom da nga yabaate rek wala nga yàkkamti waaye ci cinq jours tey li président Diomaye fay def ak Ousmane Sonko Macky Sall defu ko ci 45 jours laay Wade defu ko ci 45 jours Abdou Diouf defu ko ci 45 jours ki nga xam ne moom mooy Senghor sax defu ko ci 45 jours. en quarante cinq jours tey boo dee woon tey pour nga toj ñu dugal la ci suuf pour nga toj il faut mu def quarante jours quarante jours yooyu moo tax ñuy wax ñu euh, euh, ñuy ñëw di di di génne saraax wala di ñaan wala parce que quarante jours quarantième jour dañuy wax quarantième jour ci ngay commencé toj maanaam suuf si sax boo duggee yàlla du la tasaaree noonu ba il faut nga def quarante jours quoi pour nga commencé exploser donc 45 jours normalement nit amul lu ci yëfu jinne yu mu ci mën a créer lu dul wone yoon boo xam ni nit yi dañuy xam ni kii fii la jóge fii la jëm moo tax ma tuddee ko neexum ngoon xam fooy fanaanoo ko gën neexum ngoon xam fooy fanaanoo ko gën donc le président Diomaye ak Ousmane Sonko ci loolu la ñuy dox léegi nag c'est normal tamit sénégalais yàkkamti parce que dañu dund lu metti c'est normal ah man vouloir mo peuple sénégalais parce que luñu daj la metti na ñang na yag na ci ay fan toroxal sosal ray donc ils ont soif de justice ils ont très très très soif de justice kulen leen dalalul sax bo defu nak dañuy fayul sen bok mais yalla may na leen xol yu day ni ñu mun a muñ mais yi ku leen dalalul dañuy fayu boo deful nag dañuy màbb di dem ci gaa yi ndax ñu leen mere ndax xeetu toroxal ñu leen fi toroxal mais ñoom ñëpp gëm nañ yàlla moo tax ñu toog muñ di xaar justice bi léegi justice boobu ñuy xaar moo tax le président Diomaye fay xam ni sénégalais justice la ñuy xaar ils ont ils ont soif de justice mu ñëw tegal leen li nga xam moy genre forum mën nañ ne forum assise la assise de la justice ubil buntu bi ñëpp pour gaay yi justice quoi essence yow ya ma togn lu tax nga togn ma yow ni nga ma fi def yow ki def na ni mais léegi lolu buñ koy def nan nga bëgg def assise de la justice bëgg jël nit yi nga xamni yow say nit kessa lañ bu ko jël me yi mais bo bëggee def <laughs> justice kay da ngay jël procureur ba jël juge ba jël magistrat ba jël avocat ba jël ki ñu togn jël ki ñu jël ki ñu toroxal jël ki porter plainte ñepp ngay jël bu bëggee xam justice bu bëggee xam justice laa la wax de bu fekk rek da nga bëgg nax sa bop nga dem jël nit yi nga xam ni ñoo la arrangé dakk ñeneen ñi ñoo buñ ñëwé mer rek lañu wax ay mer rek non dafa ma kan mo la tëj mais ki la tëj dañ ko wara indi mom mu tok wax la lu tax mu tëj la parce que assise la ñepp a ku ne wax sa morom bo leen démé tay tribunal nit porter la plainte mais gars dañuy xaar pour nit ki ñew bo deful nak bu nit ki ñewul sax dañuy teubal euh jour bobu dañuy mëna teubal atté bi ba benen yoon pour nit ki mëna ñew donc bo né assise mëno né assise nationale ngay def bëgg a jël mi nga xamni les justiciers rek bàyyi fa moy ñi nga xam dañ leen a tooñ kese ñuy wax seen bir kon fofu jotaayu mer lay doon ku nek da ngay kaas ah, ku nek da ngay kaas mais da ngay indi ñi leen togn

non c'est pas parce que daf leen ba fa fàtte de déedéet daf leen di teg pour déglu leen parce que jomaay dañ ko tooñ ci lépp amuñu benn argument bu ñu tëjee euh, euh, le président jomaay bu ñu koy tëj kenn amul benn argument ñu tëj ko ci heure buñ ko jàppee kenn du ci jàpp doomu aadama weeru koor vingt deux heures lañ ko fekk ci mbedd bi ne ko dangit jaay ko doole yóbbu ko donc kook il a subi de l'injustice kon koku xamna justice justice bandi mo amone senegal kok bu demee ba woo leen <laughs> wo len parce que dafa am ci ñom confiance wo len parce que da len di dajale ñoom ñëpp déglu leen ñoom ñëpp gars yi ku nekk di wax sa morom ku nekk nan ki la motax Cheikh Bara ndjay am possibilité téye maayam di wax liñ ko def ñi ko ko def di deglu di xam ni ñom ñoko ko def motax kenen ak kenen am possibilité ni jox ko micro muy wax loolu moom mooy assise assise la ñu wax assise xanaa doo leen dem ci ay assise assise c'est public assise nit rey na nit nit nga gis ko nii ñu jël nit ki kii paaka bi génn paaka bi génn yére yi génn assise la ñuy wax assise assise ñëpp a ñëw toog ñëpp ñëpp a ñëw toog di déglu ñëpp a ñëw toog da lépp day day public nit yi mëna xam nit yi mëna gis nit yi mëna comprendre justice nu muy soxé lan moy problème problématique yi et cetera et cetera assise moy forum mëno bëgg a def ay assise ba pare tan say ñaari nit say ñet nit yu yu and ak yow nak yow mais kon bayil tur assise bi lool du assise assise ñëpp ay toog donc li assise de la justice la assise de la justice nak justicier bi kuñu ñu ki ki ki la jëluñu fa ben décision décision yi day incombe président bi après fofu jëluñu fa ay assise la ay waxtaan lu ku ne wax lu nek sa xol buñu président day dem ci ñi mu nak bu boba du doon une ñu rédiger les problèmes de la justice

la nga bëgg ñu lijjantil la ñu ngi la koy lijjantil mais affaire dafa am nu muy doxee foo nga ubbi bunt bi ñëpp déglu ñëpp xool ñëpp xam ne ñëpp xam bandi yi xam waxkat yi ku nekk proposé mu dajale bu demee mu xool lan lañ ci jël ak lu ñu ci jul jël nan la ñuy travailler ñoom ci idée idée yi nii ñu def ni et cetera et cetera reformuler la justice ba mu rafet teg ñëpp di ci gis seen bo mais loolu la mais il ne faut pas chaque jour sénégalais régaler pour créer un débat ci nous sens la moto qui la lan car la kaa lan Mais doucement vais vous wax affaire le président Diomaye Faye et son premier ministre Ousmane Sonko ils sont ultra informés ultra informés wallahi billahi wa taala <laughs> ñoom waxuma la opposition sax dañoo informe informe dañoo dañoo maanaam dañoo instruit déjà bu nekkee ci opposition rek dañoo doon jot information à 200% waxuma la ñu toog ci nguur gi légui ñoo yor renseignements généraux yi ñoo yor corps de contrôle yi ñoo légui c'est ay ay ponkal lañ légui c'est pas un Diomaye fay bu doon yeewu di dem impôt et domaine légui Diomaye fay c'est un président de la république li Macky Sall doon jot loolu lay jot lu raw loolu ci information di ko teg mi ngi doon dañ kumpa ay information te doonagul woon dara rawatina léegi mu nekk ci kaw di coiffé information yep, le président Ousmane Sonko nekk son premier ministre gis ngeen Sonko nu mu informé woon waxuma laa tey ji mu nekk premier ministre deuxième responsable et deuxième autorité de la république gars gars ils sont superbement informé, Très, très, très et ultra informé. Et je vous le dis, nous avons nettoyage crescendo. Crescendo. ci nettoyage boobu la Que nous kër mu tilim tilim doko balé ci ben fan doko balé bale danga am fu ngay tambalé di ñëw dafa am fu ngay tambalé di te ñoom noonu lañu nekk di ko développer sûrement lentement progressivement et sûrement ñu ngi ciy dox te di ngeen ci am mbégte loolu moom xam naa ko des fois damay am ay comme nu mu koy defee nii samay information xam man moom fu ne laay buujee information lu tax ma ne leen ay nit yu <laughs> yu toog ci bagage yi lañ des fois damay dem buuj ci sama information ba teg xam naa fu may jaarale samay samay créneau information ba mu yegg si tàkk <laughs> mais damay ñëw gars yi gëm xamal ni li nga indi xaaral ñu dolli la ci wallaahi xaaral ñu dolli la ci dañ may dolli ba damay tiit ma naan mais man foogoon naa ni yéen mais ci laa comprendre nii mais gars yi dañ dañ toog ci bagage yi <laughs> dañu toog ci bagage yi nag daf teg fu laa comprendre ni les tolovides font beaucoup de bruit gis nga gars yi wax ni yoruñu benn information gis nga ñaar ñooñu toog noonu Sonko Jomaay ay barigo yu fees dell lañ yi def teg ñu ngi liggéey progressivement boolewuñ ci coow newuñu yu tontonte ci mbedd yi wutuñu tamit ay doom yu leen di di leen di défendre de comme lu ñoom Macky Sall doon def koo ci gis ci autorité yi APR dañ doon am cogg ak jàgg ak cogg cogg jàgg

assemblée nationale bi teggugun ci loxo bu sonko ak jomay faloo ba legi gis ngeen ben projet de loi buñ dugal assemblée nationale est ce que gis ngeen ko fi bu sonko ak jomay faloo ba legi ban projet de loi ngeen gis mu duggugum assemblée nationale <laughs> même déclaration générale sax sonko defagu ko gaay ñi ngi bind di tok gaay assemblée nationale doole la bo xamni nit mënul jité réew te yoro yoro suprématie bi nit mënul jiite réew Sénégal te yoro majorité bi loolu rek benn gàllankoor la ci ku bëgg a dox mais sénégalais dañ koy fàtte dañuy fàtte ne assemblée nationale bi Sonko amul majorité bi moo tax bu ñu toogee ba léegi li leen loi mais rek lañ mën mais ba léegi amul benn projet de loi buñ dugal biir assemblée nationale te gars yi dama ne projet lañ yore livre lañ yore bu taxaw bu dëgër këcc yoo xam ne lu bëri dañ ko war a voté biir assemblée nationale mais mënaguñ fa dugg parce que bande yaa ngi fa toog ñoom ñoo yoroon majorité bi mais kekk toog voilà léegi nag loolu tamit gars dañ ciy dox ndànk ndànk ndànk ndànk ci li yàlla may ñu mënagum ko ñin ci def lu ñu mën kémta lay kattan mais ci lu ñu amagul possibilité bi loolu ñu ngi ciy def ndànk-ndànk donc il faut ngeen xam ni mënul ñëw rek ci assemblée nationale bi moomu ko ci seen loxo te it il faut ñu ci seen loxo gis ngeen le président Bassirou Diomaye ak Ousmane Sonko invité ci palais ba ay homme d'affaires même chose génn gars yi non kii paa la kii maire la kii kii la kii nangam nangam ñoom ci

<laughs> mais saa waay boo bëggee léegi nag ci noonu nga leen di dégloo mais yéen fa gis Modou Ndiaye rek génn non Modou Ndiaye waru fa ne mais Modou Ndiaye yow Modou Ndiaye liggéey nag kii non ba kii rek ah gis nga affaire bi réew kenn ko yor ci émotion réew nit mënul yor réew ci émotion nit dafa am nu ñuy yoree réew réew boo fa ñëwee da xam.

nga xam ñoom lu ñu am fu ñu ko teg ci lan la ñuy dox et cetera donc gars yi ni ñuy liggéeyee xam nañ ko bu baax a baax a baax a baax c'est pas da leen di gisee benn nit kese rek noo non juboo nañ gaa yi lañ ñooy ngi liggéey déedéet déedéet ñépp la ñuy jël ñu yor économie bi di leen déglu xam ci lan lañ nekkoon ak ci fan lañu jëm ak lépp nga xam ñépp pour éliminer sa non da ngay xam ci nan lay doxé sax déjà mais mëno ñëw rek sama non la na dem na dem yonam <laughs> suba day mëna la ray ah. il faut nga xam stratégie nga jël lepp té donc gaay duñu ay ngaaka peuple bi rek mo wara dal déglu dédé bi la dal déglu ñu doxal mu dem ay dédé dal déglu bàyyi leen ñu doxal ñu ñëpp dem réew mi jëm kanam affaire bi loolu la fu nekk nii mun ak xam naa ne bëgg ngeen Sonko bëggaay bu day ni boo leen ko gisee kenn koo xam da ko doon contrer sax mu taxaw ak moom sax da ngeen di tiit non Sonko war a taxaw ak kii no kii kii da koo bañ kii da koo mais sorry Sonko la gën a xam ni kooku da koo bañ amna kuma don jox jox ben exemple nan bamba kase bamba kase du mu bañee Sonko <laughs> ma ne sama gay Sonko melantane buy romb sax da koy deglu c'est lu gars xamul quoi dañu foog Sonko ben nit bu teju la fenn Sonko len dak setan lay dak la a deglu dak la a analyser tok dara rutti ko senegal ne dara bu mu genné kasso gars yi doon waxante Facebook bi sax bu mu genné inter eh, conférence de presse wax na len ko nan deug na ñu nan ay dañ may xamal li fi ne <laughs> liñ may xamal li fi ne ba wax len li fi ne gaa yëpp tiit ngeen foog ni ben nga ka la quoi bu tok ne comme ben pa Macky Sall Macky Sall pa la sonko cinquante yi la yom Macky Sall 60 di jëm kaw sonko mi ngi ci 50 yi mi ngi doog dugg ci 50 yi yorul mbax bu ri yorul ay taat yu ponkal bu toge bala mo juk don problème sonko na faaj juk tak tok ay ay boy la juma da na faaj juk faj tok donc gis nga ñoo ñoo gis nga énergie bi nga am moom lañu am énergie bi nga am lañu am ñoom dañuy déglu peuple bi ils sont connectés H24 connectés donc du ñuy ngaaka loolu na ngeen xam du ñuy ngaaka ay booy lañ comme yéen yu am doole di entraîner di jóg di dem football yi di dox di waxtaan ñu leen wër di ay sénégalais ay booy amuñu benn paa bu toog di leen fenn duñu ay paa yor ay màq yu rëy ak ay taaj yu rëy balaa ñoo toog am problème wala balaa ñoo jóg ñu nekk fa ñu leen di yëkkati ñu ay booy yuy tëb di jóg la di wàcc di taxaw kon ngeen xamee ko noonu ak li ngeen leen di bëgg yëpp Sonko la gën a xam <laughs> ñoom tekk lañuy def loolay bandi xam lépp mel ni ko xamul dara def teg noonu la mel de nature bu toogee ngay wax ak moom <laughs> mu xam li ngay wax de la ah koo koy bandi ah bon non di la bàyyi ngay yàbbee waaw waaw billaahi bu waxee ñaar nga xam ni kii xam na li ngay wax bu yàgg ak ko nand mais dalay day xaw da lay dóor nopp dof bi quoi nopp dof bi ak kanamu fodo bi nga ngay xool ah kii dof la xamul dara <laughs> nga xamul dara loolu moo tax lu Macky Sall doon def balaa caa pare sax Sonko capté lépp taxaw dóor alerte <laughs> waaw Macky Sall gis naa ko mu def lii mi ngi waajal lii mu ngi waajal lii ñoom Macky Sall tiit panique mais ku jox lii ku joxe lii ñu ne teg moom boobu la lay def mooy gars yi ñoo xam ne dañuy toog rek nit ñi xool géej ngay wax rek boo noppee tuuti bu la waxee ci li ngay wax di nga ko lem ba mu ron daw xam ni xamoo dara xamoo dara donc bu fekkee ni jamono man mii samay noon maa ko gën a xam ñëpp nu ma samay frère bëgg ak samay sœur ak ñëpp bëgg mais maa gën a xam samay noon bu fekkee ma taxaw sama benn <laughs> noonu sama frère tiit non moo laa war a taxaw ak kii moo laa la gën a xam noonam moo la gën a suivre noonam moo la gën a xam noonam te du ngaaka de xam na fu mu jaar ba yegg si fii mais il écoute tout le monde bu ñu demee presse bu mu jëlee opérateur économique yi et tout sax gars yi dem. est-ce que da ngeen gis muy dem di waxtaan ak ñoom nekk seen gaañ kon nga xam ni Sonko ay intérêt la xam mooy intérêt peuple bi bu mu waree jël gars yi jël na leen pale <laughs> mais Sonko du ci fréquenté kenn du ay gaañ na leen woo duñu leen woo donc moom ay intérêt lay dox mooy intérêt nation bi bu mu waree jël presse bi mais ñoom ñëpp la jël ñoom presse bi ñëw nañ fa Bamba Kassé googu mi ñëw na fa ñoom ñëpp ñëw taxaw mu déglu leen pare mais mais du gaañ na moom seetiwu ko moom seetiwu ñu ay gaayen du ñuy waxtaan du ñuy gaayen li mu bëggoon xam ci moom xam na ko ci moom déglu na ko xam na léegi nag ñuy def assise mais Sonko organiser organiser assise ak le président Diomaye ne veut pas dire que ñoom ñooy wax gis nga naa leen expliquer benn affaire bu ndaw quoi gis nga président ay décisions yu mag lay jël les petits détails la loolu du ñoom gis nga gars yi bu ñuy def seen bu ñuy euh, def prêter serment bi xam nga loolu président Diomaye moo war a dem ak Sonko mais am na ay nit yoo xam ni gars yi dañ leen fàtte jox invitation coow commencé riiru euh, ba mu ko déggee man maa jóg man man sama bopp maa dem ci organisation ñu koy organiser xam naa leen man leen mais gars yi mbaa fàttewu leen tel tel tel gis naa kii di nangam ñoom ñoo jël ay invitation jox ko ay nit ñu jël seen moto jakarta yooyu noonu dem yóbbul leen te ñooñu dañoo bëggoon vite fait non Sonko nu kii non yi man leen gars yi ko ak yi léegi parti bi falu leen maanaam affaire bi Sonko ak Diomaye duñu ay président u Pastef ak ay vice président u Pastef son collègue, c'est le c'est le président de la République du Sénégal la patrie avant le parti il faut que def ko c'est le président de la République du Sénégal République du Sénégal le vice secrétaire général du parti Ousmane Sonko léegi le président parce que moom Ousmane Sonko mon premier ministre il faut faire la part des choses man sama bopp contacté gars yi kii ma ne leen comme yéen a koy gérer waaw loolu du ma ci dem ba di di dem ba ci jomaay daan ko eew eh, jomaay nga fàtte jox ki invitation non ils ont organisé quelque chose mënuñu dem ci détails yi donc ñoom bu ñu organiser forum de la justice est-ce que ñoom président Diomaye ñoo fay nekk na non Bamba Kassé na yor micro bi kii na eh, wala Pa wala Sonko woote ay ah, allo kan moo yor micro bi Bamba Kassé ah kan moo yor baaful bi ah kan mooy branché matériel yi. ah ne ko mu teg ngoyaan de ne ko bu mu teg ku mbagaaw la de non non ne ko ne ko ku mbagaaw la daf ñoo daf ñu xeexoon quoi ne ko ne ko euh, euh, Pape ñu xeexoon de bu mu ko fa teg de nañu tegal kii quoi nañu tegal non non waali kenn xamul lan non nañu tegal <laughs> saa loolu du wàllu Sonko bu war a toog ñu war a dem mu ak jomaay di woote waa nañu tegal kii parce que saa moo ñu jàppale waaye na sax Sonko namm naa la kii noonu nañu nag mais yow waxi dof la yow yaa nekk ci data yooyu ay kan moo war a yor micro bi kan moo war a dugg baaful bi ban kaset la war a teg ba saa yi loolu organisation bi la ñay organiser ñoo jël bamba kase jox ko micro kooku Sonko Sonko bu mu ñëwee day ñëw gis bamba kase ñoo ñoo jël seen micro jox kooku léegi nag ñooñu ñooñu lañ ca def noonu mais loolu Sonko mënu ko li lijjanti c'est des détails quoi c'est très détaillant gars yi grossiste lañ léegi ci kaw la affaire bi ci kaw dañuy organiser teg jël ay nit ñu wóolu jox leen ñooñu ñoo xool ni ñu organiser woo léegi boo fa gisee Bamba Kassé bu yor micro loolu Sonko la quoi Sonko moo dem woon a jox lañ ko Bamba Kassé bu fekkee dañ fa teg way bi tegu ñu way bi loolu jomaay ngeen di accusé quoi jomaay boobu non non non Kassé bi war nañu ko teg Kassé bee lañ war a teg mais ça yooyu ay détail la ay détail la détail ay affaire xale la donc il faut pas mélanger ñoom ñi ngi ci kaw di lijjanti ci kaw di organiser ci kaw li mu def rëy na même ñëpp dem nañ fa Pape Djibril si Pape Djibril euh, <laughs> waa ji bu demee ba naan ni ma gisee affaire yi di doxee gars yëpp société civile ni ma gisee affaire yi di doxee mi ngi xeeñ neex ñëpp et pourtant ñooñu bërki démb rek <laughs> duñu wax lu rafet ci Sonko ak Diomaye mais dañ ko invité mu gis parce que ñoom mosuñu ko am mosuñu ko am tegal leen assise ñoom ñëpp toog di wax ku ne ñu jox la micro musuñu ko am ni nga ko amee ci jomaay kon kay kooku tànk yu mu jóg tey tànk yi rafet la Pape Djibril Fall bu Pape Djibril bu dem ba ah ma gis nii ah mi ngi xëy neex de ah, di saalit te pourtant lu ndaw lañ ko ñamal muy saalit lu ndaw lañ ko ñamal a gum leneen lay gis leneen dinañ gis di ngeen gis benn changement de paradigme bu musul am Sénégal billahi wallahi wa taala yi Sonko ak Diomaye koy def de Macky Sall bu muy jóge fii dafa signé ay décret lu mu ko neexee lu mu ci jublu woon nag mooy sabotage ak créer benn cafouillage bàyyil fi problème Diomaye ak Sonko créer ko ay noonu mu jël mu jël Sénégal def ko gâteau di passé rek décret signé fii Malal bi Talla chef de département anglais ki ki kilifa kër gi chef du département espagnol di def lu ko neex bugg créel Ousmane Sonko ak Diomaye problème ko léegi nag def sabotage mu saf sap jël ñenn ñi jox leen part di gâteau gars toog nag dóor seen deq foog ni de kii na sa waa ñëw baare décret yi foo jël ñi jox dajale presse bi nag ñoom ñoo ñu xulle <laughs> mais nan mais ban dëkk Trudeau de bu xëyoon fii jàpp waa presse bi dajale leen biir pale ba naan ay man dama leen allégel dette yu yeeg ay fiscalité bi <laughs> ba canadien yi jàpp ko du ko dolleeti Trudeau amul fitu bind décret naan xolal fiscalité bi li ngeen war a fay fisc bi baal lañ leen ko multiplier par zéro dem leen ngayaan leen mooy leen <laughs> dofuñu ban président Amérique moo ñëwee dajale ay journaliste wala ay presse bi yorel dëkk bi ay quatre cent milliards may naa leen ko <laughs> tey mbaxal mal mal mal mbaxal bi tooy na de Hmm? ah, ah mën a fay mbaxal bi toog na de may naa leen fiscalité rek dem leen mel ni sa baay moom fiscalité bi ko xam nga loolu amul fenn xam nga foofu loolu amul fenn loolu lépp nag Macky da ko defoon pour saboter bu muy mujjee da décret yi da ko doon xoolal comme cere cere baase da ko doon maye nu mu ko neexee di may yow ñaata nga may ñaata nga yoral ñaata nga yoral Sénégal mille milliards ah may naa la ko <laughs> may naa la dama yóbbul hmm, décret kii yore na ma mille milliards may naa ko ko <laughs> caaxaan yu metti la lépp nag pour lu mu lu mu ci jógte woon mooy bàyyi fi sabotage jaxase kër gi yépp nga xam ni après bu jamaay ñëw di dindi day am ay ennemi parce que ki ki ñu fal ki Macky Sall fal ci décret bu ko jamaay tëllee rek day mer doon dem ennemi nag taxaw di ko xeex non yàqal na ma sama xéwal yàqal na ma sama et cetera et cetera donc loolu la Macky Sall doon dugte mais nan nga mën a nekkee patron de presse ubbi sa presse jël ay nit ñiy liggéey di cotiser impôt di cotiser di fay ay taxes di maanaam ñoom di fay fisc yow patron bi boo leen di fay da ci ciy génne fisc bi fiscalité bi maanaam tax yi danga nga ciy génne impôt yi da génne lu bu feebaree lu war a fajoo lépp nga génne ko ci yow nga rocc ci lépp après yow nga war a fay yow redressement fiscal nga ne nañ ma ko may quoi <laughs> da ngay jël ci xaalisu say employé di leen dagg yow mii di leen liggéeyloo musoo leen bañ a dagg musoo leen fayam tamit ci seen xaalis bu ñu ñàkk nga leen di dagg waaye yow nga bëgg ñu may la ko yow loo loo ñu liggéeyal bañ la koy may yow loo ñu liggéey ñun Sénégal bañ la koy may ay caaxaani kese la moo tax le président jomaa avance sax moo falu wax na ko lii yëpp laay bind sànni ca taj waa ji day saboté moo tax loolu la def et buñ ci dellu ginnaaw redressement fiscal bi na gaa yëpp fay compagnie yi yéeg ak ñoo dàq mën a nax sénégalais fii koo ci wax <laughs> sénégalais sax noonu la xasaatee déjà bone newul yusundur ñen yow yow bàyyi yusundur Ndour raw na la bu sa morom au moins yusundur mom jël na employé na wa employé mais di délinquant fiscal la délinquant fiscal ko xamni tay ji bu doon Europe la dañ ko mais yow mi ñaata yon ngeen dégg ni Messi amna problème Espagne redressement fiscal ñaata yon ngeen dégg ni euh, sen wajjo Ronaldo bu es bu nekk Espagne amna amna redressement fiscal té ñu ay star interplanétaire lañu dëkk yi du ñu foowee fiscalité dëkk yi développé wu yëpp fiscalité moo leen gën surtout Sénégal amul économie Sénégal économie xoolal économie exogène la ñu am économie exogène mooy économie bu basé wu ci extérieur bu ñu lekkee extérieur la jóge bu ñu naanee extérieur la jóge lépp extérieur la jóge moo tax ñuy rang ci Auchan yi économie day endogène mooy économie bi nga moomal sa bopp bu bàyyeekoo sa bir deuk lepp jóge ci sa bir deuk consommer local souveraineté alimentaire etc etc légui kon Sénégal c'est économie yépp ci fiscalité la basé amuñu lenen Sénégal amul tous du courant du ndox du ceeb du lepp Pakistan lay jógee Siam ceeb brisé bu jógee Afghanistan etc. luñu lu ñu lekk ci tous économie exogène la yor. waa léegi Sénégal yëpp lu ñuy fayee salaire fiscalité la fiscalité la ñuy fayee salaire maanaam tey li ñuy dagg ci yéen loolu mooy fay président bi mooy fay ba fay ñépp waa léegi loolu boo ko mayee moom foo jëm li nga am kus néew lu lay dundal pepp yooyu ngay dajale mu lay dundal boo ko mayee foo jëm foo jëm waxutuma nag nga war ko may pauvre yi nga may ko borom doole yi ñi yor économie bi nga may leen ko naaru libanais yu toog instauré wu di gagné ay milliards par par ay bati plus ak di ay milliards par par jour wala par semaine nga nga nga may leen ko ñi yor ñànk économique nga may leen ko waaye yow kon xanaa ñun ñun ñooy fay ñun baadu lay jaay ko tu caaf bi patente deux cent francs jaay ko tu jën bi patente trois cent francs mais ñun ñoo dee ñu ñoo dee mais ñi nga xam ne ñoom ñoo yor économie yor lépp ñu mais ñoom ngay may <laughs> léegi baadoole yi ñooy fay kon sa économie yëpp baadoole yi ñoo ko gérer parce que yow ñu war a fay sax ñooñu danga leen ko may parce que employé bi employé Youssou Ndour ci boppam kooku day fay léegi Youssou Ndour war a fay moom tamit redressement fiscal war a fay fiscalité nga may ko ko te employé bi nga xam ne di ay baadoo la sax di fay sa waay loolu c'est c'est méchant

les délinquants euh, fiscal wala fiscaux dañu war a fay c'est tout moo am ci dëkk yi baax yëpp léegi nag mooy comme lu ma leen doon wax gars dañ foog ni ñoom Ousmane ay nga akale du ñu nga akale ñu ngi changé nag ñi ngi changé ñu ngi changé step by step man boo gisee des fois may wax du ñoom laay waaxu de xam naa lépp ñoom xam nañ lépp maanaam xam naa ni may wax des fois damay dégg ay tractation gisoo gars yi dañoo ragal coow li ngeen di coow nii lañu ragal gars yu bëri dañoo bëgg a militer ji Pastef gars yu bëri jamono ji ñi ngi wër Pastef dañoo moo tax ñu bañ ñu arrêté seen jaayum carte yéen yóbbu leen lu xew de gars yi dañ doon fëgg buntu Pastef ku ci nekk di wut carte ñu àndoon ak APR gars yi quatre-vingt-dix pour cent am na ñoo xam ne ñoo gënoon rëy làmmiñ déggutu leen ci kenn salaw mais ñu ak ñoom nag dañuy bëri ñun xam nañ à jour ñoom lu ñuy waajal ñun ñu leen di dóor mariage la jamono ji mariage bu tar la da ngay tebbi sa trèfle lu nga dóor tak léegi ñoom ñëpp dañoo demoon ci Pastef fu wuti ji ay carte ñii di rayante naan dañoo bëgg a gis Ousmane Sonko ñii di rayante naan dañoo bëgg a gis yi affaire bi dëgg seen côté ñuy battre carte gi <laughs> ñun léegi comme ñun dañu am information bi ñu fëgg leen Bokar Yàgg bi démb laa ko wax Bokar Yàgg ba léegi yaa ngi fa boobu Bokar Yàgg nu mu fa toogee tey ñu ne ko dëll yëkkati appelé à d'autres fonctions mais moment bu ma lay wax Bokar Yàgg boobu Bokar Yàgg mi ngi def tout pour mën a gis Sonko pourtant Bokar Yàgg gis na Sonko de deux trois quatre fois <laughs> foo mu gisee Sonko bëñ yi quarante cinq ans yi ngi génn <laughs> yu mu gis Sonko yëpp gis na Sonko ba tàyyi bu ñoom Sonko toogee ba léegi Bokar Yàgg gis na Sonko ak Jomaay plus de nu mu dee dee dee dix fois mais fépp amul fenn foo xam ne Bokar Yàgg gis na Sonko da génn ba yi lu Sonko Sonko bu nee sax ceeb bi nit na sax Bokar Yàgg Jomaay ne ah mais sax waay heure bi jot na de donc moom pour moom xaar bi bukki bi bugg doon xar léegi nag comme ñun gis nañ yooyu dañuy sànni bookar yàgg ngi fi ba léegi de bookar yàgg koy sa lu mu fi defati muy xaar tool yi rrrr ka nanga ko ter teeb bi sànni caqat fekk ñun xam nañ tractation ya muy def ak bëñ yi 45 ya yamuy génn ñii siiñ pour ne na yee day naxaate <laughs> léegi nag foofu la ñuy joué ñoom ba président Diomaye war a dem King Fahd Palace Racine si jóg <laughs> defar affaire yi ba commencé monté defar non gis Sonko naa gis Diomaye non non non nañ waxtaan non non man kay bëgg naa wut carte racine si non dinaa wuti ji carte loolu moo tax gaa yi fàtt seen carte yi APR ah, man koy boo de fu mu ne waxuma dara Macky bu mu daanoo ba léegi coowu ma maa ngi nii noppi léegi damay xool nu ma demee jege di wut ay nit yu jege Sonko pour mu boole kook Sonko mu ngi doon dox loolu racine si di ci boppam moo tax ba ñu Macky Sall ñoom Sonko war a dem ca pal euh, war a jóge palais dem King Fahd Palace rek maa njëkk a dóor alerte bi Racine Sy Racine Sy <laughs> dama ne bu ma la gisee nga jaga fa rek ma ñuur samaam yow xam te boobu mu ngi joog xool nu muy doxee boobu maa ngi wax ak moom coow li la wóor Racine Sy Racine Sy boobu yi ñu ko doon fàtte King Fahd Palace bu ñuy waajal bu ñuy commencé ñu commencé def suite bi laa ko yëg bu ñuy defar suite bi pour président bi laa ko yëg racine si bëgg changer fofu ci saase bëgg a defaru ci jekk parfumé <laughs> xal bu recevoir gars man di dallas dallas yi ma ne ko tey nga day dem nga taxawel ne à côté c'était à l'œil bobu mi ngi préparer suite ki ma ci jappalé muy Clédor Sène momit mu dem ci télé racine si racine si <laughs> racine si na salaw lena daf ñi nalawal de racine si na salaw bu gars yi di ñëw di dugg ci suite bi feeñuwul sax mu dem taxawee ne la rek <laughs> ñun maa ngi ko topp est-ce xam nga ni Racine si gis na Sonko si Racine si gis na Sonko de mais coow li bu ñuy yuuxu ñun tekk la def salaw Sonko ñëw installé Diomaye ñëw installé xoolal Racine si daw ci ginnaaw fexe na ba gis Sonko toog gis nga nu ma defee king fat rafet na mu ngi nice alors yéen a ngi ci jàmm hôtel bi mu ngi baax ah clim bi mbaamul benn problème mais jamono ñu ngi koy jox mu ngi lekk bu baax Racine si gis na Sonko mais pour moom benn ngaak la bu mu tëgg wëndeel Sonko di ko reetaan rek mu ngi Sonko di mais fu nekk nii Racine si moom pour fu nekk nii moom pour moom non nice RAS kenn du ko fa jëlee moom pour moom am na assurance foofu la Sonko sadiqee la pour moom am na assurance Racine si ma nga ki nga fat toog njaax jàll pour moom gars yi fàtte nañ lépp te xamul ni Sonko même ci biir ay laay fa wax na fi ba wax fi Racine Sy ba wax fi ki fat palace xam na lépp famille yu mu licencié ñii mu yóbbu leen chômage technique Pierre Mbow nekk fa directeur d'exportation d'exploitation di dóor ay milliards bum bum bum jël ki nga fat juutal sànni lu ne lañ def ki fat

takk ba mu dëgër takk wow ki seere na seere ndomba bi na seere na baa nga koo jox dóoral ñaari nen ca joggi boo tojee benn nen bi ne laa ilaaha illallaah boo joggee ne subhaanallaa tël doo ba dajee moom jox ko loxo pañe ko dóoral ba bi tax ko ñett boo ko bi taxee ñett day gëlëm bu gëlëmee gi donc sëriñ yi dañ leen di dóor ñu takk ba kii sangu ba set ñëw dóor tëb tëb nen bi dóor laa ilaaha illallaah subhaanallaa ko dóor la loxo xëcc wiccax ñett yu ñu leen waxoon taxaw sal sonko sonko sonko sonko sonko sonko ne def naka paa paa bi naka maire bi mbaa ñu si am sonko sonko ñoom pour ñoom ñun ay dof lañ ñoom pour ñoom ñun dañoo fàtte ñoom pour ñoom ñun ñoom dañoo mystique ba ñun dañoo yàqule ñun toog rek di leen seetaan waaye dara changé wu fi boo duggee bind ci internet bi King Fat Palace

racine si a remué ciel et terre pour gis sonko et jomay ñom ñepp paré nañ pour jënd carte paré nañ pour paré nañ pour ram paré nañ pour martank sonko ak jomay ak ñeneen ak ñeneen ni ñom ñepp nak ñi ngi leen à l'œil tek leen chap di leen sétan amna ay nit yo xamni <laughs> sama gaay duñu nit quoi am na ñu Macky Sall bàyyoon foofu gars yi ñii leen fa bàyyi de jël seeni nit sànni ci biir di liggéey ak ñoom ñooñu xool dañ génn su waay ah, sa waay gars yi da ñu bàyyi nañ ma fi gars yi da duñ ma laal bàyyi na nangam ak nangam barki Seydina Muhammad wala gars yi Sonko <laughs> ñëw rek waaw mais saa lii nu mu demee nii nii nga expliqué ba am na nit yuñ fa bàyyi yoo xam ne jamono ji dañoo foog ni dañ leen a fàtte léegi nag lu ñu doon liggéey ci jamonoy Macky xam doon liggéey jamono ji ñi ngi liggéey liggéey yoo xam ne pour mun a toog gars yi ñi ngi leen di ŋacc ŋacc yoo xam ne ñi ngi leen di liggéeyloo gars yi ñi ngi liggéey liggéey bu tar pour mun a to ci jamonoy ab Macky dañ doon man de seen carrière léegi nag comme bàyyeegum nañ leen fi jamono ji dañu bëgg a prouver pour ñu bàyyi leen fa fekk waaye nitu Sonko yi ñu ngi leen ñi ngi jàng ci ñoom ci xeetu jàng boo xam ne parce que moment boobu gars yi ngi liggéey ñoom liggéey bu tar di wane ni ñoom dañoo jub nag ñoom nangam léegi nag waaye nitu sonk yi tam ñuy doog indi gars di jàng ci gaay yi loolu la leen wax jàng leen de tibb buñ leen ŋaccee ba ñu jar tak ñu woo leen ba ñu ñu su ca xaj xool ca xaj ngay naa ah, man maa doon nalaw nalawuñu mais stratégie boobu mi ngi ci biir stratégie yi gars teg ñu bàyyi leen foofu ñuy for ñuy former gars yi nànk-nànk di jaay xel di wane pour mun fa toog di mun a prouver di bëgg a prouver pour toogaat fa fekk duñ fa toog dama am ñaari directeur yoo xam dama jot a waxtaan ak ñoom ci loolu. ba ñu ñëwee benn ñu ñi ñiy rey directeur ñoom ñaar ñëpp nag jëlee nañ leen fa. di ci ray sen bop di liggey xol di dem di ñi dem indi ji dem defe ci sen num mu ci dem genn ay keuy woné dañuy liggey ko ko ci ko ci bu ñëwee mala ñi ngi liggéey rek mais da ngeen fi jóge de non mala non man gis na sonko wax naa mom non ko ci tok na sama CV sax no bu dé CV la mom lolu mom tok na ay directeur mi tok de man da ngeen fi jóge de da ngeen fi jóge xawma nu xawma lolu leen mun dem dëmm lu mais da ngeen fi jóge am directeur ci dem ba di jéem a entourage Sonko pour jéem leen jox xaalis pour ñu pour ñu waxal leen ci Sonko ñee man la di jóge de non voilà gis naa xaw ma lan bu ma ko gisee wax naa ak moom ne dina ma wax ak Sonko man xoole jox na ko sama kii man leen di fii jóge de loolu moom mun naa leen ko garantir kenn ci yéen da ngeen liggéey ak Sonko Macky Sall du ñëpp

foo tuddee turam ñu saaga sama tey ma tak tak yooyu sa waay jàmbaar la de sa waay ñun ñëpp liggéey loolu nañu mais kontaan nañ ci moom gars di ci réserve xaw ma gars yëpp lañ toog nii lañ leen di tonget sànni tonget sànni dama toog dañuy wax <laughs> voilà yëngu amee na ah. waaye man de gars yi mujj nañ jëlee quoi ah man waxoon naa la ko yaa ngi financé di ci rey sa bopp di jox di wut say lobby ñii di la yuuxul ñii di tàccu ñii gi ngeen xoolal alors alors foo mujjee ñaata nga financé. ñaata nga perte jóge nga fa allo boo déglu woon samay wax li du la ci fekk <laughs> donc gars yi ay lobby lañuy créer ay lobby lañuy créer pour mën a toog te duñ fi toog kenn du fi toog kenn kenn ki ñoom ñëpp ku ci finance da ngay perte kenn du fi toog wax naa ko ñaari directeur yu ma gisoon waxtaana man lu ma leen ko waxee noonu la nga leen fi jëlee tey jóge nañ fi donc ce lépp fait fexe ba duñ fi mu yeex wala mu Nous faisons ba Nous fi faire dañ pour changer Nous ñu pour jël ñi pour changer mais transfert de technologie boobu technologie transfert de données loolu lañ nekk di def bàyyi leen fa ñu ŋecc wane seen xam-xam ak lépp ñu bëgg a liggéey ci saasa ci moins de quelques jours ñu bëgg a wane liggéey ay jàmbaar lañ liggéey gars yi transféré wu lépp xam-xam bi jël lépp kaj ji leen ci biti parce que fu ne nii toog rek la bëgg ci laa duggee ci l'histoire de Doro Gaye bii ak problème bi ko dikkat